par rapport à la démarche rien n'a changé. Mhm. par rapport à la démarche amul benn rupture. pour pourquoi amul rupture parce que on pensait que ñoom suñu ñëwee. du ñu mhm. dem vers les bailleurs de fonds. on pensait que ñoom suñu ñëwee duñu dem vers. on ne pensait pas on croyait. parce on que croyait. on le croyait fermement. parce qu'ils loolu lañ loolu lañ ñu jaayoon xalaat ko ak ñoom ñu wax ko ñun ñu toog di xaar moom du benn <laughs> n'est-ce pas. voilà maintenant on croyait dem foofu. maintenant xam nga soo avant ngay ñëw pouvoir la neex mën nga wax mais soo ñëwee ba xas ba toog ci pouvoir bi les réalités du pouvoir da lay dab parce que mënoo doxal réew. te doo dem avec les institutions internationales mënul nekk c'est pas possible. bien sûr est-ce donc ba mu demee ba xam réalité yi loolu il est obligé d'aller vers même su nekkee dañuy repenser la manière la la manière de coopérer autre il faut y aller comme ni ko doyen waxee am fulla ak fayda pour défendre les intérêts de la nation sénégalaise et je sais que loolu yëpp je sais que loolu yëpp président yi fi jaar yëpp défendre nañ les intérêts de la République du Sénégal maintenant dafa loo xamante ni dañ ko doon dégg Sénégal parce que le président de la République Macky Sall a reçu le premier ministre canadien. ci la ànd sàmm jikko yi juddu. ñuy wax ci mbirum borom ñaari tur yi. Barke Dembo Ndiaye suñu président de la République a reçu le plus grand défenseur borom ñaari tur yi <laughs> mais dégguñu benn. borom ñaari tur LGBT rek. la communauté LGBT. <laughs> ñu ñu jox ñu ay image yoo xamante ni dafa nekkoon ci loolu. Eh, te ñoom aussi dafa am lu ñu jaayoon moment bi sa ànd sàmm jikko yi jóge mhm. mu am ñoom ñoom ñi accédé au tey am lu ñu jaayoon démb à la place de l'obélisque. ànd sàmm jikko yi c'est pas Mboup. waaw ah. Babacar Mboup ñi accédé au pouvoir tey am lu ñu jaayoon sur cette question la mhm. yaakaar naa ni président de la République balaa muy recevoir nit ci audience. dinañ ko def dinañ ko jox fiche audience wax ko ki ngay recevoir lan la lan la lan la jox ko ci ay image yu am importance mu am information yëpp su par rapport à la personne man jàppoon naa ni su nekkee am na information yëpp warul recevoir ko. mais il l'a fait mais dégguñu kenn wax ci peut-être waa ñoo langue dinañ ci wax peut-être. Mm-hmm. <laughs> peut-être parce que ñoom ils sont de la société civile mais dégguñu benn acteur benn acteur wax ci dégguñu ànd sàmm ji koy jóg dégguñu benn tollé parce que defoon na tollé fii Sénégal. ba ay nit jóg ci battre ci campagne ba mu jóg. Mm-hmm. mais bon on attend on attend on dégoûte parce que foofu aussi ils sont rattrapés par la gestion du pouvoir parce que la république identifié wul borom ñaari tour ak leneen ak leneen ak leneen. Mm-hmm. république ay intérêt lay gérer. donc loolu encore une fois seen kàddu démb da leen a dabaat tey.